waa mais Galas doom day nii naa la. borom Sénégal maa lay ziar wér. sama góor sama jigéen sama xarit si loo ne. mais nam naa la. mbaa nga am jàmm. yàlla na jàmm yàgg. noo tuddee initiative bi. waa lii dama si kontaan trop nag ndax sunu frère Waly Ballago Seck li mu def dafa rafet ñu tey dama bëgg bongo maan yi football ak waa Faramaren loolu vraiment wax dëgg yàlla tey lii seet na xool te ñëpp kontaan nañ si lii day wane ni on est ensemble ñoo bokk ndey ak baay ñun ñëpp benn lañ. mais Bongo Mané ak Séné dañoo gëmloo sénégalais yëpp ne seen xol yi booloowul jubboowoo leen tey boo leen regroupé woo fii fa yéene football daf ñuy jaax. no c' est que métier boo gis day am concurrence mais nag dama bëgg concurrence yi mu xaw a loyal parce que ku ci nekk rek am na ku la saf ku ci nekk am na koo xam te ni bu amee xew yow lay woo. ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mën nañ toog six mois yoo xam te ne kii day tëggi jaar nii kii tëggi jaar na te duñ daje benn programme kon day wane ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mais nag nekkul dañoo bañante ndax boo gisee fi tey bu nga mën Sénégal yëpp ñu ngi fi taxaw gis nga kon nag xëy na dañuy doxal métier bi rek di liggéey rek waaye daal bañante wuñu parce que mënuñu bañante ndax ñoo bokk lu ñuy def ay ñun nag bu ñu bokkee lu ñuy def war nañu mën a bañante loolu tax tey lii gis nga tey amul benn bongoman bu la réer fi Sénégal ñëpp a ngi fi tey waaw yéen tamit ngeen def lu rafet ñëw couvrir événement bi waaw. Mm-hmm. mais noo dundee li nga xam ne nag moom moo di coowal ni am Ameth Thiou indiwaale tey sax for nañ ci weewu gis nañ vidéo yi Ameth Thiou daal di dem ci internet bi ne euh, génn na fi nga xam ne moom moo di Ramdan en tant que artiste noo dundee loolu. non loolu de wax dëgg yàlla neexuma. Eh. Ameth Thiou bu génn Ramdan neexuma de wax dëgg fa yàlla te maa ngi ñaan yàlla si kattanam ak mbaaxam yàlla na ñu boolewaat jubale leen amet ci demaat foofu te nag lii jar na sax ñu doon seeti Pa El Hadj mbay Mbaye. ñu def médiation. non Nabou war nañ lii jar na ñu dem woo Pa El Hadj Mansour Mbaye mu wasu si ak parce que diggante Ameth Thiou ak Wally Ballago Seck loolu dafa mës a rafet. te war a dafa dafa war a mën a gën a continuer di rafet. Pa Mansour Mbaye daal ne ko seeti mu jubale Wally Ballago Seck ak Ameth Thiou parce que ñoo bokk ndey ak baay man loolu laay ñaan yàlla nañ juboo. merci beaucoup Galas yàlla nañ juboo jaajëf. waaw mais Vienya nuyu naa la. fay naa la Nabou leen di bëggee di leen ziar bu wér a wér sant yàlla di leen bëggee rek. naka yaa ngi ci jàmm. waaw ça va alhamdulilah alhamdulilah. initiative ñi nga xam ne moo di Wally Ballago dafa rafet suñu frère suñu xarit ñu bokk milieu bi mu def lii nii tey nii tey Bongo Man yi laa bëgg a loolu dañ ciy kontaante te it moom it dafa nekk ku baax lii mu def su ko defee dañ ciy ànd ak moom ñu bégalante kaf ree xam ne ñun Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. mooy da ngeen wane beneen fas yéene ñëpp dañoo ne Bongo Mané bëggante woo leen maanam xol yi boole woo leen ko tey ngeen regroupé wu fas yéene football. yéen a gisal seen bopp gis ngeen ko de ah gis ngeen ko xam nga voilà non loolu amul. gëj a gise bi mooy am mais déggante day am ndax dañuy tëggi chaque jour ku ci nekk doo am jot di seeti ni te fi ñu dëkk ku ne bokkut ak sa morom quartier mais dañuy gisante statut dañuy xamante programme yi fi ñu nekk leer na galas wala xamante nañ ñun ñëpp mais tey jii bu doon tey ji bu am wala lu ñaaw fi am doo ñu gis ñu dajaloo wax dëgg yàlla. mais est-ce que tamit nekkul ne yéen a may sénégalais yi lu ñu leen di waxee wala ñu leen di joxoñ baaram tuuma parce que tamit yéenay toog ci plateau man euh, non non man kon du man ndax man nañ ma gis sax internet yi waa internet yi dañ may woo chaque jour man maa daw affaire site léegi ndax xam nga la moo tax comme cas yu demee nii la yu bëri bëggatuma ko léegi nañu liggéey te bàyyi wax ji ak jëf ju ñaaw rafetal xol yi te jàmm loolu laay wax chaque jour nañu liggéey yor xol bu nice yéenante jàmm. merci beaucoup Vieux kontaan naa ci. ay góol de góol de bëggante wala. ah maa Ousmane ngi nii xale bi. góol bi. non dañuy ambiance nii rek pour l'instant nii damay baaral nii rek. yoo xam nga ne bu mu génnee ma mbéj kenn cinq minutes ma mbéj ci kenn waaw. dégg nga nga ni boo leen génnee. ci kanam tout cinq minutes moom am ko moom dugal mbéj loolu moom mënut a moom tout le moment. man naa ne jubóo wala toj naa avant ñu kii. Ah. toj naa fi. waaw te damaa bëggoon baay ba soufflé kii bi ma tëdd ci terrain bi ah. na kenn du football. Ah. Ousseyn Mbaye na ma bul def loolu ak sama mag yu baax yi. ah waa parcelles yi mm. ñu ngi nii sama mag yaa ngi nii taxaw mm. waaye nag tey jii xam nga fii daal lëndëm xam nga fii daal lëndëm da ngay bàyyi ba affaire bi tas rek ba bu wàcc ci xur bi rek nga dóor kenn mbéj jubal di wax na nag ñun Bongo Mané nag lii ñun ñoo bokku ndey ak baay sama rakk yaa ngi ñoom baay Mamour xale yaa ngi nii di ñëw ah góor a góor a góor a borom mbuur a nii góor a mi nag kii kii nag dafa am lu mel ci ñun waaw kii préféré si ñun jóge ba mbuur mook Jackson ñu dëkk mbuur di doxal ci aar bi lu doy waar kii sama mag la kii sama xarit la. ñu baax bëgg lu baax. waaye ku ne xam na ne. ñëngu si ñu bëri xuloo ñu bëri coow. waaye tey dañ koy off. ba arbitre bi ne fee. ma mbéj Ousmane Bongo wala am daw tey. Mm-hmm. Ousseyn Mbaye ngi ne. tey day tey moom. tey day dëgër këcc. non non fii dëgër këcc ñu dëgër ñoo. dama ni ñun suñuy taas dara nooyul suñuy bongo daa dëgër suñuy wax daa dëgër léppay dëgër. noonu la demee. ah ñu nooy ñi kenn ñëwul. Garmi ngi Garmi Ndiaye. kii dafa ne nga ni ñu nooy ñi kenn ñëwul. kenn danoo am fitu ñëw. Ah, donc ñu ngi noonu Babacar Bongo la ñu wax ne dina ñëw. Papi Suus dina ñëw. waaw ah. ñoo nooy nag merci. ñooñu kenn nooy déglu rek non xam nga xam nga aptu bi dafa rafet. li ñuy wax à chaque fois rek ndax Sénégal mënuñoo def dara te boole ci bongo maane. xay ma rey leen yaa ngi dégg ñun ñun xorom ci cin lañ. loolu la ñu yàlla dogal mais waa li def dafa ne ah. bu noble te ñun bongo maane wax dëgg yàlla ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk bàyyi ku ci nekk kilifa nga ku ci nekk responsable ku ci nekk da ngaa sa njaboot ku ci nekk dangay ngay ñàkk di jëriñu. doon ay VIP gars yi yëpp doon ay Baye Fall kon lii da Wally Seck bu ko neexoon du def lii mais dañoo woo ni boo ngoomaane ñoo leen ñu kaf ñoo leen ñu ree kon amuñu fayam. damay ragal ngeen di football ba mu yàgg yëngal bongo yi. mënu cee ñàkk léegi yaa ngi ci oto yi. Ah, bongo yaa ngi ci oto yi. waaw parce que gars yi oh, oh, ci biir oto yi tëj nañ ko. Uh-huh. jóge ba mbuur jóge fépp. waaye tey damay bàyyi ba mu jeex. Uh-huh. ba lamp yi fay ban fay lamp yi. ma mbéy am ndaw ak maa Ousmane. d'accord léegi loolu moom. léegi coowal actualité bi nga xam ne nag moo xew foofe ci biir Ramadan am Amethou waale Wally Ballago Seck tey rek Amethou génn ne bàyyi na li nga xam ne moom moo di Ramadan wax ko ci biir réseaux nan ngeen ko dundee. soos ba am foofu pomme de terre bi Amet ba mu bàyyi sunu mag la. waaw Amet. Mhm. bu xoolee ci diggante mag Amady Badiane. Mhm. xool Amet groupe ci bu njëkk ba. Papa Ndiaye Amady. Mhm. Amet Thiou lu njàkk njëkk la. dëgg la ñëw ba téye seen rakk ji gunge ko ba heure bii. papa Thion dem bàyyi koog Ramdaan. Ramdaan Amet Thiou mooy mooy kilifay Ramdaan. ak ñoom ëmbadi. seen rak lañ àndal. war ko jàppale. la ma am vidéo moo waxoon. Sénégal mën nañoo duul. Mhm. mën nañu fen mën nañu ëmb ay wax def ko ci enveloppe transféré ko mu dem Amérique luy problème bi. waaw bàyyi leen wax ji. garam dool ah ak xanaa gisoo soo seenee xaadim temps dina nga moo doole yemul ambiance maay king bi Amadou Ndaw gada cac am dugal nañu am dugal nañu biir bu rëy bi kuñ dugal ah, ah. dañoo dugal dañoo dugal dañoo dugal kay waaw ku dugal waale moo paas waaye sow ma woyul tuuru la dugal nañ ñu woyul tuuru la dugal nañ ñu mais mais match bi na la yéen a njëkk a ñu hmm. Hmm? ko dundee hmm. waay dugal nañ ñu waay ku dugal waaye Bongo yi ñoo war a puus nii tuuti. kenn mës a gis histoire Bongo Maane et les Faramaren yee mais maa ngi leen di bëggee affaire bi dafa naan football lañ mës a gis. mais mais ah kay ay góor lañ dañuy entraînement newul ñoom ci bongo bi rek la ñu nekk ah dañuy entraîner. mais nan nga maar nii mu def nii nice xapi la oote fo ñëpp ambiance Bongo Maane ñëw mbër yi ñëw. ku nekk mu joué wanteeg yow génn défilé wanteeg ñun kaf ñun rey ñun li dafa nice dafa nice. Mm-hmm. ci biir loolu bu loolu weesoo nan nga dundee li nga xam ne nag moo di coow li entre moom ak Amit. non mais loolu loolu du cës ay frère lañ. mais moom na bàyyi ay frère lañ ay frère lañ réeroo amul bañ a am. Mm-hmm. Mm-hmm. mais bu loolu weesoo lan ngay waajal kon takk nga fi sa ñaari jabar ba non maa ngi ñëw maa ngi ñëw ak leneen. comme gëmloo nga Sénégalais da ngaa takkandoo ñaar jabar. ah mais loolu nga ko gisee dama leen ko gëmloo xale bu am fit nga wow bët waa jàmm firi rek jàmm. <laughs> mais tey du nooy de tey day dëgër. non non non fii dara du fi nooy. fii dara du fi nooy fii léppay dëgër boo déggee ñu naan na nooy booy tëgg ba affaire bi soo bëggee ni ñu dégg nga naan leen na nooy ñu arrêté mu nooy nga daal di boo pareewaat na leen na dëgër gars yi bàyyi mu dëgër nga pliqué et alors. <laughs> mais yooyu nag fii du fi nooyee ah déggoo li ma la wax. na nooy ñëpp a koy wax. na nooy mu nooy nga diriger. waaw mais bongo man waxuñu dañoo ne bongo daa war di nooy. ah man déggeewu ma ko noonu ah man na nooy na nooy laa laa ko déggee taas ba mu neex nga ne na nooy ñu ne na nooy. gis son excellence is coming. clap your hands son excellence is coming everybody everybody son excellence is coming. man bi ma koy xam di ànd ak moom mi ngi jàng école point 1 2 boobu bongo xewul. <laughs> on avait une autorisation qui nous permet d'organiser dans tous les établissements de la région de Dakar. des manifestations culturelles et théâtrales. Nous avons trois pièces à proposer les enfants. dëgg la le bon élève et la comportement d'un élève. Mm-hmm. mu yàgg mel ni mu mel. barki Dembo Ndiaye bi muy def albumam mm-hmm. dama ñëw participer ci benn morceau bongo ci lu neex. Mm-hmm. balaa maa génn studio bi ñu jox ma lu bari. fu ma taseeg moom lu nit nit bari bari bari danan kii suma mag la. bëriwu ma tànk këram woowu ma ko dew ma fa mais geste bii mu def tey ñun ñëpp képp kuy bongo maan suba na nga yeewu gore ne waali moo ñu dóor huit waaw <laughs> huit papa booy li waay jëlal ma yow yaa may mu gore man après sax dama jaawaloo sama bët yi dafa fulu xamatuma ñan ñooy ñoom waale xamatuma ñun barke Mohamed ndax toog naa 15 ans dugguma ci terrain football mujj ji sama xol bi da doon ni mu doon def mënu ma ko xaw a. daaj daaj daaj kenn kenn ma ne la. waaw ma ñëw waay bu ma dog de ma ñëw. yaa may déglu. mais da ngay daj bongo maanu Sénégal yëpp. ci seen loxo. Ah. maa ngi teg seen gërëm ak seen kontaanite. Ah. di wax Sénégal. la simplicité est une belle correction. La simplicité est une belle correction. Maria Sine may sa bige may sa bige maar aji ndoowa nga des ndoog jarka dem ba ca Lambaay li nga def coomo munu ko baadoo la munu ko man Ouzin Mbaye le président des Bongo maa ngi lay gërëm ci turu Bongo salaamaaleykum ah ñu ngi kontaante ci li nga xamante ni Mar def na ko. Mm. te du ci ñun rek la ko yemalee. Mm. fii nii mm. ambiance kafre loolu la woote. centre du peuple loolu la woote. bi ma Paco oowee ne ma dañoo bëgg yéen euh, bongo maan yi ngeen ñëw. ba Ousseyn Mbaye ne ko jëmmal naa la delloo naa la lépp. ol ñëpp ñu ñëw ñu kaf ambiance maar dañ naan naan yow dundal bu ñu yàlla bëggee na ñu baak yow bu ñu naree rey ñu tàggaleeg yow ni nga def Ouzin Mbaye noonu nga ma def man sama carrière da nga ci def dara sama carrière da nga ci def dara ndax lu em ni centre du peuple hmm. ngay def sa son son boo bëgg jël ma ci dugal ma ci soo amee concert ooma waali yëg nga nu hmm. bu ñu gisante wut ak yow sax xel yaa ngi fi saa bu ñu gisanteeg yow day neex yaa xam li nga bëgg yal na la ko yàlla may gis nga ne gërëmu foo attends gërëmu foo dafa amul sens nit ki il faut nga def loo xam ne dañ la koy waxal du du lu kenn di tricher du lu kenn di wax loo xamante ne nii defoo ko li ñu la waxal yow yaa ko def man du ma gërëm nit lu mu deful. d'accord bëgg nga nit baax nga am nga yërmande yàlla na la yàlla may sa baat wér. ci barke Seydina Amar. loo ci sànni mu li ma ci sànni ñaari baat kese la Bongo Mané Sénégal yëpp xamoon na leen mais bu ñu nekkoon 100 tey Wally def na ko.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 dundal ah. ah. waaw man maa man maa ngi nuyu ñëpp maa ngi jaar ñëpp ñii ñi fi nekk ñëpp ñii sumay mag lañu ñii sumay rakk lañu ñii sumay nijaay lañu ñii sumay cousin lañu. waaw aar nag moo ñu boole ah su aar weesoo nag ay sénégalais lañu ku ci nañ ci ñun toog nga ci ruq. Ouzin toj sa xol. nga wax ko ak ka ñàkk ko wax. wala am bongo wala xaarim temps wala xa ñu euh, tudd sax euh, képp ku fi nekk rek ñoom galas ku lim juum. ah mais jëmm ji dafa nekk jëmm joo xamante ni daf ma bi may jàng école. ñu doon def waaw ay pièces théâtrales di def ay luxus école point 2 man ak sama mag moom ñoo fa doon jàngee. waaw bon man ma xàmmee kanamam ci may nekk xale. may màgg mu toll ni mu toll. di def li muy def. en fait c'est une personne qui n'a jamais changé moom li muy liggéey la ma sa liggéey changé wul c'est xoolu lii mi ngi dox mënum def ko déedéet moom ci li mu ne la ne noonu laa ko ràññee muy mag baax ci man yow Ouzin Mbaye <laughs> xam nga ma ràññee ko ci donc suma mag la suma xarit la c'est que nag euh, euh, euh, dëgg la musique am na solo ah mais dafa dafa am lu jiitu mooy ñii ci li ñuy yëngu bant la bant la sabar sax buñ koy defar ak leket ah bant leket bi daf ci am solo te loolu si mun ñu ko génne suñu culture comprendre nga bant bu dee ak loxo buy dund waaw donc vraiment euh, boo leen génnee ci culture da ngay nax sa bopp mënuñ ci génn bu ma fubalee géewee lii communicateur traditionnel yi fubal ak ñëpp bàyyi fi bongo maan li may wax ma ko ah. waaw parce que ci lañ bokk dëkkat sabar yaa ngi réclamé seen match ah dëkkat sabar yi ñu ngi réclamé seen match dëkkat sabar yi <laughs> waaw mais damay bañ xam nga lay bañ damay bañ ñu ma plainte parce que léegi Euh, léegi léegi léegi nii nii nii léegi Ousseyn Mbaye xaw na fi faatu wóorul sax damay bañ man daal bàyyi naa damay bañ ñu ma plainte wóorul wax la lenn <laughs> man Sanekh Bongo waaw di tolloog xale yi bongo maan yi. waaw ah. ah. Ousseyn doon suñu mag ak Viegna. ñu doon ay xale nag ñun jeune talent dafa am affaire boo xam ne ginnaaw fu ñu déggee ne bongo maan yi dañoo bëri coow. dañoo bëri xeex dañoo bari xuloo. dama bëgg yow maar. yow suñu mag. nga ànd ak Ousseyn Mbaye. ñu dajale xale yëpp. nga defal ñu son. nga defal ñu son boo xam ne pour bongo maanu Sénégal. tab man waxuma dara damay wax loo xam ne moo ñuy jëmale kanam ëllëg yow sunu mag nga yow ci yow la ñuy roy damaa bëgg nga dajale ñu. waaw léegi xam nu ñuy def su ma la waxee mën naa ko mm-hmm. ah sama jot mayu ma ko mm-hmm. mais studio baa nga kër ga mm-hmm. Ouzin dina def ni mu ko bëggee ñu tij leen ko ngeen def yi leen neex. waaw yaa